Thank you. fi moy njaxate njaasaan digganteem ak tiwaawan tollu ci 7 km fi nak la xale bu jigen bi nga xamne dañu jiñ na fa faat ab man bu ko doon sakku dekk ñu fekk fi yaayam mu jaaxle lol depuis bi mbir mi xewé ba tay yeyul yàbbi ci waye tam ñu fekk fi papam ay mbokam ak i ñalem ñu jaaxle lol ci seen ëllëgu doom ji ci fatali mbir mi mu ngi xew dimanche bi ñu genn ci xale bi andon ak ñaari moromam dem ci Thiès quartier bu ñu naan fayu ab ngenté ñu deglu papam mu ñëwaat bu baax baax ci nu mbir mi tëddee. fay nag du ma ci mën a sori lool parce que par téléphone laa ci duggee assisté wu ma ko woon nekkuma woon ci wetam. léegi bi loolu amee même bi ñu may woon ñu ngi ma woo 14 heures 10 minutes fekk man may génne mexe jom si Thiès bi ma woowee wax ma ni ma xale yi dañu bëgg a dem ci ngénte li fayu mais ñoom duñu xamul fi ñu jëm moom chauffeur kalando bi. fayu quartier la bu nekk Thiès. man ko yéen fu ngeen nekk yéen mun ma ñun actuellement ñoo ngi ci fi tolloog euh, Kër Masamba Gueye jëm ci balante bi man ni ko da ngeen dépassé fi ngeen jëmoon léegi wax ma ban endroit moo la gën a jege ma wax la nga yóbbu fa xale yi bu ko defee man ma waxu leen ku leen jëli foofu bi ñu te loolu man ak moom loolu mun ma stade la jot moo ko gën a jege ma ni ko wàccee leen foofu man dinaa woo ku leen jël si léegi bi loolu amee ma woo ba mu kubee ma ak man ma woo yaay xale yi man ni ko waxal ku nekk foofu te yor oto mu dem stade la jot jëli xale yi parce que calando bi foofu leen di wàccee ah bima ma toogee bay dugg Tivaouane man normalement ay 10 minutes 15 minutes ma woote wat, ñun ma xale yi ak seeguñu man leen ah affaire bi de jël na temps mais comme maa ngi ñëw naa bàyyi ba ak si Thiès bi ma ba Thiès ma dem Stade la Dior jëlaat sama téléphone waar ko ci même numéro bi jëlu ma mooy insisté jëlul ma joxe numéro bi ñeneen pour ñu woo ko ba xam dañu ko mën a jotam mu def non jëlu kenn mu fay appareil bi léegi nag ci la xamee nga xam ne kon affaire bi nga commencé di critique ci laa woowaat yaayam ma wax ko moom ak mbayang ku ñu wax mbayang la àndal benn xale bu ñu wax mbayang léegi kooku yor na portable naa laajte numéro am pour ko ñu jox ma ko léegi bi ma wooyee mbayang papam mu jox ma numéro mbayang ma woo ko mun ma ñoom actuellement fii ñu leen wàcc xamuñu ko man ne ko da ngeen di taxaw léegi nit li leen romb bu leen nit rombee ngeen laaj ko fi ngeen wàcc fan la mu koy defee man mën na jël si foofu bi ñu toogee après ñu woowaat ma ni ma ñu ngi leen di wàcc ancien garage bu sàngee ma ne ko léegi kon comme foofu la dina am taxi jël leen taxi ngeen fekk ma stade Lat mu waxee taximan bi mu indi leen ba ci samay tànk bi xale yi wàccee mu nekk ñoom ñaar ma ne leen waa ani soxna ñun ma soxna kalandoo bi du ko yóbbu ma ne ah kon affaire bi doy na waar léegi ci laa ñëwaat si ngénte la ñoom ñu wàcc dem ngénte la ma ñu ànd ak sama beneen ñu dem police def déclaration bi bi ñu defee déclaration bi ba pare bay génn di ñëwaat côté fayu bi ñu bi ñu jóge woon ci yoon bi lañu xale bi waat ci beneen portable lu ñëwee ñu waaj ko fu mu nekk mu ne moom actuellement xamul fan la nekk man ko jox ma ki nga xam ne moo lay indi ñu jox ko mu ne mi ko jëlee côté Kër Baara Kayre da ko fekk noonu ci kaw tel mi am na ay gaañu gaañu man ko léegi andi ko rek dañ daje ab euh, police bu stade la kii parcelle quinze minutes après moom mu ñëw bi mu ñëwee ma xale bi am gaañu gaañu ci loxo bi man lekkoon kon comme wax déclaré woon ko à la police dañ delluwaat police wax leen xale bi feeñ na biñ demee police police bi ñu fi fekk mu dugg man ak sama frère boobu ak xale bi ci biir di ko entendre avouéwul waxul lu leer daal léegi ñu ne xaj na dafa am suñu kersa comme jigéen la affaire jigéen la nañu woo yaayam ak policière bi fi nekk bu ko defee ñoom déglu ba mën naam di la wax ak ñoom direct ci ñu ko entendre ñu génn ñu ne léegi dañuy dem seeti zone bi nga xam ne fa la affaire fee yi amee woon ba xam dinañu gis calendrier bi wala déet léegi ñu ànd ak police ñu wër àll bi wër wër gisuñu ko ba ne nañ ñibbi ñoom bi ñu jëlee rang-rang bi ba wàccee ba dugg si ci pont bi ci autoroute à bi Ah, comme fim mu jàddee woon ak moom xale bu jigéen mu am ropee dal ni fi la jàddee won ak man légui nak ñun comme yoonu suuf la du ranran du goudron ñu top tracé bi di top tracé bi ba dox ay 700 mètres ci ci biir àll bi nonu ci la ñu retrouvé oto seen auto bi ci ginnaaw ben parcelle ñu jadd bi ñu euh, parcelle bu ñu miiré la du kër dañ ko miiré nii rek autour 5 5 rang léegi bi ñu fi lañ fekk euh, ce sëfooru kalandoo bi ak kalandoo bi mais dañ ko fekk mom mu dé dañ ko fekkee noonu mu dé nak légui ci la police wooyee sapeur bi sapeur ñëwee ñu jubbanti ko ñoom ñoo am droit laal ko ñoom ñoo ko yëkkati ñu xool biir oto bi am na deret jaaru xale bi jigéen bi ci biir oto bi lañ ko fekk ah après daal ñun foofu la suñu xam-xam yam ci côté boobu léegi bi ñu dellu ñëwaat police ñëw police bu compagnie ñu ni fële la ngent ñu yóbboo ko gendarmerie ngent waaw ñu laaj fële ñu téye noonu entendre yaayam ak xale bi après ci lañ ko jaay. waaw xam loolu moom ndijaayam bi ko wax moom la engagé xañ na moom bu xamee ne am na keneen ku nekk ci ginnaawam mu wax ko mu jëli kooku wala ñu dugal ko ci enquête moo gën a yomb mu muy junj rek parce que ñun wax dëgg yàlla fay fekke wuñu ko liñ ci xam mooy suñu doom moo ñu réer ñu déclaré ko kenn nit la parce que ñett lañu woon mu wàcce ñaar ñi yóbbu kenn ki te bi mu leen di wàcce daf leen wax ni leen seen papa nee na ma wàcce leen fii indi kenn ki te man waxatul ak man téléphone parce que jalaatuma ba ñaari xale yi sama dëkkandool dañ ma mere woon parce que dañ jàpp ni ñoom dañ ni lan moo tax man may yóbbu sama doom di leen fa bàyyi ñoom ñoom loolu lañ jàpp donc la façon loolu leen kala chauffeur bi wax ni leen seen papa nee na naa leen indi moom doo doomu te yee ñaar ma wàccee leen parce que oto bi mu yor benn place moo ci des te man or du ak man kon ndijaayam bu demee ci rajo bi de am lu muy wax xañ na da ci am ay preuve na ko joxe rek preuve moom bu ko joxe moo gën a yomb ñun ñëpp waaw bu fekkee am na keneen ku ci impliqué ñu jëli ko bu dee ku mën a dañ koy jëli rek te bàyyi ñu suñ doomam dem jàngi ñun loolu moo ñu yitteel magam jii di wuyoo soxna loo moom itamit lii la wax ci mbir mi. kook sama rakk la man mii nekk magam 23 ans laa am te xale bi toppul ci man am na keneen ku topp ci man mu doog di ci topp kon xam nga ni kooku xale la 16 ans la am mu ngi doog a dugg ci ay 17 ans xale bu ndaw la jàng dong la xam ak dimbali sama yaay chaque jour saa yu wàccee 2 heures 14 heures lay wàcc lu ci bëri saa wàccee jël na bi dem jaay ki kereem kereem lay jaay sama yaay kooku jàng dong la xam ak liggéey ñu dëkk bi ñu bëri boo boo leen ko laajee xamuñu ko xam nga ni kooku xale bu ndaw la dafa xaw dafa précoce nag loolu doogu moo ko yóbbaale waaye xale la di ans la am mineur la. no am na journal dama dégg tey ñu ne xale bi ba xam dafa amoon téléphone daan digganteeg waajeeg yooyu noonu xale bi ba mu juddoo ba tey ba ni mu toll ni musta am téléphone am téléphone bay dégganteeg kenn. téléphone mosu koo yor looloo ma ci jaaxal te dan maa dégg tamit ñu ne oto bi da leen dañ koo fay 500 pour mu yóbbu leen ba Kër Baara jëmuñu woon Kër Baara fayu leen jëmoon Thiès moo tax ñu fay oto bi 500. xeex donc mosumaa gis mu def ko ñëpp dañ naan dafa ragal man loolu laa xam ci moom wax dëgg yàlla. li ma gën a yiteel dëgg-dëgg mooy njàngu xale bi parce que classe d'examen la nekk te bu ma sañoon wax dëgg yàlla cours yi nga xam ne da nga koy retardé ñu jéem a seet naka lañ may dimbalee ba xale bi mën a dellu si continuer am njàngam lu ñuy topp ci enquête ñu di ko topp parce que xam ne am na ñàkkul ñoom dina ñàkk ay piste ci am ñoom dañ xam fan la ñuy jaar bu topp topp ko mais njàngu xale bi man daf ma intéressé de bëgguma cours koy rate nii parce que classe d'examen la nekk te munu aussi am na chance am cours de rattrapage pour dabaatal li nga xam ne moom lay moom lay rate nii xale bi nag boobu ba léegi mu ci loxoy yoon tey ci alxemes gi nag lañu ko war a déglu ngir xam mbir mi fan lay mujjee ginnaaw ba loolu lépp wéyee dinañ leen demal ci kër xale bu góor bi nga xamante ne moom lañu faat ngir ñu xam mbir mi fan lay mujjee.